tere nañ ci taxaw. li yàlla tere nañ ci taxaw. li mu digle nañ ci taxaw. li yàlla digle nañ nañ ci taxaw ci def ko. alquran juróomi yëpp rekk ci nekk. alquran yëpp boo ko jàngee juróomi affaire ci nekk. alqasasu. nee na li histoire bu fi jaaroon. wal amru. nee na ak ndigal yàlla. wal nahyu. ak li yàlla tere. wal wadu ak nag li yàlla dële wal waidu ak tëkku gi mu tëkku doomu aadama yal nañ yàlla musal ca tëkku ya yal nañ yàlla musal ca tëkku ya ya mu dële yàlla nañ ca yàlla ya mu dële yàlla nañ ca joxal nag la mu digle yàlla nañ ko def la mu digle yàlla nañ ko def la mu tere yàlla nañ ko bàyyi la mu tere yàlla nañ ko bàyyi suñu amul xam-xamu jàng ko it fuñ koy jàng yàlla nañ toog yàlla nañ toog déglu ko ñu amul xam-xamu jàng ko it fu ko borom xam-xam yi nettalee yàlla nañu mën a toog déglu ko ci alquran القران يونتي بي واخنا لف يونتي بي واخنا لف كتاب الله فيه نبا ما قبلكم نينا تير بي يالا ني سما تير بي مبروم غاني جيك ني لين جيتو وون يين ني ماي واخال واخنا سي جين بير وحكم ما بينكم نينا يين ني تام سين اسي بي لين دي اسي الله القران نيتل نكو لين وخبر ما بعدكم ني ني يالا نيتل ني سي سين افير يالا نينا يلا واخر نني ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله يلا نيا بو نين ووتي سي سي مير بو نين ديسي داكور سي بن مير مو مونتي دون دين لين رانك سي تير يلا بي موتلي ا كونديسيون كو ان كنتم تؤمنون بالله ولا يلا نيا بما لين كوي واخي نك بو فكي گم نين نك گم نين كو گمول موم يلا واخول يو دار لومي دوما رك réew mi daal war nañu seetaat seen bopp kon ne réew mi nañ seetaat seen bopp gouvernement bi war nañu seetaat seen bopp nguur gi nañ seetaat seen bopp ministère yi nañu juboo nee na yi juboo ne benn ku bëgg a amee mi réew nee am réew ku ko bëgg a amee kenn ku nekk la teg ca loxom da nga ko cay dimbale moom mu dimbale ca la dénk dénk ko sa morom da nga koy dimbale ca lañ ko dénk la nga ca man moom mu dimbale la ci liñ la dénk ñoom président bi mën a liggéey su ko defee nag borom réew mi mën cee dëgg nag liggéey gouverneur yi mën a liggéey su ko defee seen surga yooyu yeneen a yooyu a féete liggéey. su liggéey. fonctionnaire yi mën a liggéey. fonctionnaire yi liggéey. dara mën a génn réew mi jëriñoo. dara man a génn réew mi jëriñoo ko. bàyyi doom am doom am bàyyi. doom mën am baay. doom topp baay. doom topp baay. jabar topp jëkkër. jabar topp jëkkër bi. rakk topp magam. rakk topp magam. taalibe topp sëriñam. taalibe topp sëriñ. sëriñ bi jóg. sëriñ bi jub di wax li yàlla wax di wax li yàlla wax te jiitu ca def ga te na jëkk koo def di tere li yàlla tere di tere li yàlla tere te jiitu ca bàyyi ga te jëkk koo bàyyi nag lu mu gis te du dëgg lu mu gis te du dëgg te yàlla bëgg ko nga xam ne yàlla bëgg ko mu bàyyi ko na ko teel a bàyyi am fitu digle ko am fitu digle bàyyi ko ca toppee mu ànd ak ñoom buñ ko ca toppee mu ànd ak ñoom ñu bañ bañee mu bàyyi leen bu ñu bañee ànd ak moom mu bàyyi leen te ki nga xam ne ku mu amee kenn ban teew te mu féetale moo amee keneen du mën cee dara waaye nañu wóor ne réew yi benn doxatu ci waaye nañu wóor ne àdduna jëpp réew yi benn doxatu ci ndax juboo amul ndax juboo amul xol yi ànduñu xol yàlluñu defatuñu li yàlla bëgg defatuñu li yàlla bëgg bàyyeetuñu li mu tere bàyyeetuñu li yàlla tere ak bokk rafetatul ak bokk rafetatul kóola rafetatul kóola rafetatul kenn wóolatul sa morom kenn wóolatul sa morom jabar ji sax wóolatul jëkkër jabar ji sax wóolatul jëkkër jëkkër wóolatul jabar jëkkër wóolatul jabar doom doylootul baay doom doylootul baay baay soppatul doom baay soppatul doom xam ngeen ne loolu mooy dox nee na loolu ku nee ci àdduna ji xam nga ne moo fi dox ni ma ko xame ngeen ko xame nee na ni mu ko xame rek lan ko xame waaye boo xamee ne suñu gisee Abdou Diouf waaye boo xamee buñu gisee Abdou Diouf ne ko réew maa ngi dox naan ko réew maa ngi dox te dara doxu ci te dara doxu ci mu am ci mbetteel mu am ci mbetteel kilifa diine gi defe ne lépp a ngi dox kilifa diine gi defe ne lépp a ngi dox ngay seen xale kilifa yi nga boole ci nag ñenn ñi seen xale kilifa yi ñu fab tur secte yi def ko ay yëpp ñu fab tariqa yi di soppi yëpp baatub l'islam ñu def ko yëpp baatub l'islam ñu def ko yëpp allahu akbar ca jàkka ja booleetuñu allahu akbar ci jàkka ja tax waaru tanu ba nekk benn Seydi Aboubacar si nee na ndax Seydi Aboubacar si daana wax ni laa ilaha illa allah mu yéen laa ilaha illa allah ku ñee deq laa ilaha illa allah ku ñee deq rendi laa ilaha illa allah ñu daje ca kanamu laa ilaha bu ñu demee ba daje ca kanamu laa ilaha ñuy laa ilaha illa allah mënu ñuy lay laa ilaha illa allah xanaa bu kenn wax ne bu kenn daf lay ne tiwaawoon jubóowuñu wala tuba jubóowuñu suñ ko defaloo dañu bon rek sëñ bi nee na waay waay tiwaawoon jubóowuñu wala tuba jubóowuñu ku mu tee kenn jubóo ku mu tee jubóo da ngaa nar a bon rek kon tiwaawoon jubuñu Touba jubu nee na kon Tiwaawan ak Touba kenn jubu ci yàlla dafa ne waatasimu bi hablillahi jamian wala yàlla wax ak ñun ne mooy leen ci buubu yàlla gi ñu ne mooy lislaam ñu ne mooy alquran ñu ne mooy sunna mu ne mooy bañ a nax sa bopp wala tafarraqati bu leen teqalikoo yàlla ne fattaqullaha wa aslihu zaata baynikum yàlla waxaat nag ñun te neen ni ragal leen ma man buur bi te yeenal seen i diggante ba mu leen door ca teg wa atiu allaha wa rasulahu door ca teg nag te ngeen topp yàlla ca la mu leen digal topp rasulullah ca lam leen indil jële ko ci yàlla andi condition nag teg ah, waaye yàlla indi na sart teg ca nag in kuntum muminina ndegam ay croyant ngeen nee na loolu lépp nag yàlla nag nee naa ah, lii may wax lépp kat ndek ndek gëm ngeen moo tax ku gëmul yàlla wax la yow dara mu ne wala tanaza'u fa tafshalu wa tadabarihukum yàlla waxaat na feneen ne bu leen xëccoo ko ŋaayoo ko werante su ko defee ngeen ñàkk seen kattan perte rek lii su ci tiwaawoon nekkul nekkuñu ci njub. sëñ bi ne lii mu fi wax daal bu ci tiwaawoon newul newuñ ci njub. su ca Touba nekkul nekkuñu ci njub. bu ci Touba nekkul nekkuñ ci njub. su ca Quraysh nekkul nekkul ñu ci njub. Quraysh ga Muhammad juddoo sax sallallahu alayhi wa sallam buñ ci newul newuñ ci njub. su ci rasulullahi nekkul nekkul ci ko li ko yàlla digal. nee na bu ci rasulullahi nekkul nekkul ci yàlla ko yàlla digal. loo xam ne leen neexul yàlla jarul roy ci sëriñ jarul ya roy ci kenn. nee na lu neexul yàlla jarul roy sëriñ jarul royee kenn sa sëriñ gëm ko topp ko sa sëriñ gëmal toppal loo man defal loo man defal ko waaye nag loolu yàlla waaye loolu yàlla sëriñ bi moomu ko sëriñ bi moomu ko yàlla ko moom yàlla ko moom te ëllëg te ëllëg sa digganteeg sa borom sa digganteeg sa borom yoonu sëriñ bi nag yoonu sëriñ bi kenn yaag yàlla rek am affaire وخصص الرحمن بالتقديم لأنه أخص من رحمة نينا بوكي سي يالا من رحماني doon ne rahimi te mu newul rahimi doon ne rahman te ñëpp di ñaari turi yàlla bii li mu lamb bee da koo lambul rahmaan yi day wërsëgal ku baax ku bon kaccoor ku yiw ku ñàkk ku am ñëpp la rahmaan yi xëy rawitaaye waaye rahim yi nag moom bu boobaa ka soob yàlla dong dong dong dong yaa koy jagoo matalul ñëpp moo tax ñu muñal ko yàlla ne ko li tax ma fayee la ko yàlla ne ko li tax ma fayee la ko def baax def baa bii kaana ma kaana wa bii yakunu ma yakun yàlla ne baakat wàccam googu tax may digle ñuy ko bindee noonu pour yëkkati ko màggal ko ndax na nangoo wàcc moo ne boole naa ci beneen secret de bii bii ci baa boobu li am ci la amee liy nekk ci lay nekk ëllëg loolu ku ko yàlla jagleel waay waaye jooju daraja ku ko yàlla jagleel loolu du alquran tànnal la sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam nga bokk ci xeetu muy sa yonent tànnal la alquran tànnal la alquran muy sa téere tànnal la diine l'islam tànnal la diine l'islam muy sa diine defal la qibla bi muy qibla mu defal la qibla sallallahu alayhi wa sallam yi muy sa penku keneen foo jublu te du fii du yàlla du na te qibla kat kaay ma wax la foo julli jëm fu dul qibla bi yàlla ne lañ fa jublu julli ga amul njëriñ te yàlla mënoon na ko def sax ba noppi nëbb ko te yàlla kat mënoon na ko def sax bañ ma ko xamal waaye feeñal la lépp xam nga yàlla mënoon na ko julli foo fu la la ko jublu ku ci tombewul fi ma bëgg rek doo jëriñ waaye xamal nañu ko nga ne yàcc rek yow nag yooyu yëpp yooyu moyen nga ne yàcc rek kër goo ne laara bi laanaam kër goo taxaw ne laara bi laanaam ñuy waaj a yàq rek ñuy waaj nga ne daa dem feneen sëñ baa ngi léegu rek ni nu perte nga bu ñuy waaj a yàq rek nga yàkkam ci dem feneen ni laara bi laanaam ñuy a yàq ñooñu di waaj a yàq nga jàll daa dem ba doo lekk da ngay dem a dem a dem ba kër gee nga dem fekk ñaañ ba noppi boo wënnee ko ca ñee yàq nañ ba pare defe nañ ne ñu nekkuñu ci dara dara. xam nga ñun ñii ñëpp dañoo ñàkk a ñàkk fulla ba defe nañ ñu newuñ ci dara dara dara dara. dem nañu ba li mag ñi bàyyi woon sax ñu ne. du dara dem a dem a dem ba wëlër bi nu amoon kee gi mag ñi bàyyi woon ko fi ci jikko ñu sell ci xam-xam ak jaamee inu yàlla sax. ñu mun ñu mënoon cee profité ñu ne yàcc ne loola du dara indi l'islam bi fi mu toll nee na te mag ñooñu kat seen kër kër loolu indi l'islam fi mu toll ñu ne ñu ne duñ dara ñun nag loolu lépp naa doonoon ne duñ dara rek la mag ñi doon jëfee su dul dara ca yàlla kenn du yóbbu dara lu mën a jëriñ nee nag mag ña lañ doon jëfee bu ñu yóbbuwul dara fa yàlla keneen ku jëfee leneen doo yóbbu dara fa yàlla seetal leen seet leen bàyyi Serigne Touba li mu daj seet leen maam borom Touba mu daj Cheikh Sadibou li mu daj. Cheikh Sadou Abiy li mu daj. Cheikh Sidiye li mu daj. Cheikh Sidiye radiyallahu anhu li mu daj. Baye Cheikh Boukounta li mu daj. Baye Cheikh Boukounta fii rek li mu daj barki démb. Euh, Serigne Ndiassane li mu daj. Serigne Ndiassane mii fi ne li mu daj. Serigne Layeen li mu daj. Serigne Layeen noonu. Ñaseen li ñu daj. Ñaseen li ñu daj. waxuma Ñaseenu léegi de. waxuma Ñaseenu léegi de. waxuma Tiwaawunu léegi de. waxuma Tiwaawunu léegi de. waxuma Layeenu léegi de. waxuma Layeenu léegi de. Layeenu démb la. Layeenu démb la wax de. lu mu wax rek cosaan laa tax mu wax. ñun ndëd laa ngi sukk leen rek. ñun nag ñu ne rek ndëd laa ngi aset baa ngi nii sukk leen lu ci yet ak paaka wuti. ñun lu ñuy defee yet ak paaka te noonu danga ko bu baax rek. yow yow ruujuloo tool bi. yow boo xamee ne ruujoo tool. faraasu woo ko. far woo mooy ji dugub ca bam tawagul. séddiwul ci sa kanam. nee na taw séddu bi sax fekku la. jiwuloo. jiwuloo jiwu raado woo raado wuloo gerte gi ballar ñu woo ballar ñu woo mbay bayaatoo bayaatoo buddatoo buddatoo nabatoo nabatoo